ah boo ko joxoon muy bis de soo ko mu gañe dara rey ba mu ko reyee nag wéy ci xeexam pour yaatal nguuram balaa xeex balaa xeex bay jaay ñu bar ko rey moom itam wala ne war na ak jubali na moom dee mooy rog ila daara jëm ci daara al azim ma daa ji mag li ay gendekum mu Daara moomu rëy ki mu war ne commissaire àddina bi wurim jamono ko neexal Daara moomu dee rob na ko waxtal la mu wàcci Daara am tabiri kër ak al mu iddu daaji jommale waaye ba mu ko rogee boobu la jommi waaw ne bu ko dee rogee dee la jommi wana jubale na ila Daara jëm ci Daara rabi madaari mag lihada ay gendeekum fa talla mu wàcci moom daara laara nan xafiiri kërëm njuuma al mu it la daa di jommale watanat ñaareeleena moom dee yara ilihi caaji yongal daara mooy karay daara al hakimi kene fayli suuf xëy soo ko ko rey muy Iskandar bu ndaw bi ba ko reyee balaa xare bay jeex mooy foofu lañ ko reyee wala yosut terewut wala dakkuwut xanu wëlis ko arataatee maa li nga xam ne saanaxoo ñoŋeeloon na ko minax dirin ci wurus xaral ju bëri jam dencoon doxut diggante moom dee wala kees ak wurus dañ ko defoon ba mu dee ba mu dee doxul diggante moom dee kurus ga kees ga war xaa dencu gannaaw moom dee li nii waaye dafa guddee xaju bi wasanal ñaaree leena jaxaayi ligi ci aji yongaan dara alhakimi kade fayli toog walam yesu terewut xanu walil xaayilu dara arata halaku maa li nga xam ne sax na ko ñoŋee lon na ko mina sirin ci wurut waaw wasa fasaha wasa wat madaa abdil madani ahmadi wasafat sotti na moom de al aqyaali ci kàngaama yi boo jëlee yaa way tati ngelaw al xaylu buur lay doon waaye du doone mooy buur boo mag bi nag kilifa dëgg lay eh? doon eh? waaye dana am ku koy lim day lu mel ni gouverneur bi lim xam la waaye day war a am ku koy lim nag boo jëlee yaa way mu ne tànnal am na si ay kuyoor yu jiitu woon mooy ay buur yu doonoon kilifa lee sotti na leen garawam li de su fekkoon foor ci falte dafay tey dee kon ñoom bi ñu doon dee wasafa sotti na moom dee ala aqyaali ci kàngama yi fujari yaa way jeqeeku yi ngarawam wala waykat yi ngarawam wasafa seetlu na moom dee madaa abdul madaa ne lépp abdul madaa a ko mët yi mu daal di tal di dokk mu ne moo delloo Abdul Mataan borom dokk gu tal gi Abdul Mataan kenn ci sangi arab yi ñu bokk moom dañ leen di hormal heure bu ne ndax ay sang lañ dafa bokk ci li leen a ràññee nag mat nit mu ne borom dokk gu tal gi waaw la basa bil xawmi min sorin wa min qisari ismu zaraari wa ala min asafiri di jàmbat ci ñoom tuutaay de ndax la waroon a tuuti ci ñoom jàppal yàlla ne xëy na bu tuutale rek moom waaye mat ni dafa am balaa kay ibnu abdil madani siriya de su fekkoon nekk de sang mat ni am balaa dana tee de kon ñoom dingaan de wasa wat delloo na madaa abdil madani lefa abdul madani xalaq ma daa ji tas di dog wana sa tëb na moom dee xalaq ba in ci saba waa din ak nas watan akam tëb faxataw ñu mujj ahadisa samir da waxtaane way ngoonaar yi ak suha diñu da way toog mu ne dee na ci kaw sabawu tëb na ci kaw aat tey waxtaane ne rek moo des waaye seen lépp raaf na sababu benn dëkk la woon bu nekkoon ci pegg ak dex buur bi ko deferoon defal ko sëkk gar gi dina indi ndox mu doy te sonnalul leen woon ñu la di defar ay dëkk bi tool yi naat moo ca dayoo ba xewal gi bëri lool lool lool lool noo ko nattee rek romb na ko te lu ni buñ ko daan jàng sëriñ bi doon ñoo wax mu ne góor gi daan na leen wax ne naka Youssouf àggoon na ci seen tool yi boo ci soxlaa dara bu la neexee sëgg defoor doo ko def liy tàbbi ak bu ne ci ngay dëkk ci ngay dikk boo fexe lay def waaw su la neexee sëgg defoor am doo ko def waaye bu ne liy tàbbi boo defee nii rek sa defukaay day jaar ni nga soxla nga def. maam nag ay jaamu yàlla yu ñu leen sant te seen xewal yooyu ñu daan de ko bañ dañ ko bañee sama borom nag doole xeebal janax moo doon seen sëkk bi di ko gas di ko gas di ko gas di ko gas yóbbuñ ci dara sëkk bi mi ndox mi daal di ko jéggi dikk ci dëkk bi daanu si ci dëkk bi bu ko defee yàlla def dëkk bi tasee ci lool ñu lëggee ak ko delloo si ni mu meloon sori Sohigan. Sohigan. Sowekoon naa kaa ko day seede kon ñoom duñ doon di ak aw nit la ñoon ñu amoon doole ñoo xam ne soj yi ci lañ daan nekk di dëkk ndax doole ju ñu amoon doole faaf ko sama borom yónni di ñoom ak yónent rek mu aaye leen jàngu xëy mu woo leen ci yoonu njub ñu bañ ne duñ ko xëy witti ko mu ragal doo leen bëgg doon sama borom ñu war ko ne ko ñun kenn mënaluñu dara يرى وانا فاما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوه كم مسلم كم مسلم amana xewa ci ñoom ngelaw loo xam ne diir na ci ñoom semaine rafal leen ñoom ñëpp su fekkoon doole nii rek ak xaral la nii day tee dee kon ñoom doon na ñàkkaatee ren wana sa tëb na ala saba in ci saba waadin ak aat naswatan ak am tëb faxa daw ñu mujj ahadis samiri ne waxtaane way ngoonaari ak suwa di ñu daway fo waada mangoon na moom dee bani marwaana banu marwaan maatu ci gannaaw ñi ci la radaa jëm ci alaku fa xatat ñu gaaw ñoom banu marwaan mu bari tabaliyum daaji gàllante kuyal ba al mufid lu daaji gaaw mu ne ñi yëpp ci rekk l'islam la gannaaw bu l'islam ci l'islam bi xam na fi ay buur yu am ay kudd yu ràññeeku ñoom ñëpp dee jëlee na leen fi muy ñu mel ni Banu Umayya seeni guddi lu ne def nañ ko ja lu ne soxna yi taggee nañ leen ko yëf yu xumb neex lool waaye du ca dara ku ci wàllam jeex rek mu dee ak waajima Banu Umayya sunnul makrumaati lana yamsuuna wannaasu fi dunya lahum tabaxo waaw mu ne banu umayata ñooñu yoonalal yoonu tiraanga ñoom ca kanam ni ñu ci gannaaw xam nga woo xumb na selu la bu baax a baax waaw xalifatallahi somlu diine mujtamio ala yadayka fala sayxun wala bidao yow mii ku dalal yàlla ci suuf si tey mbiru diina jege na ci sa loxo tey kenn jengatul tey kenn moyatu sunna mu ko neex mu ko neex خليفة الله صمد الدين مجتمع على يديك فلا سيف ولا بدع بنو أمية سن المكرمات لنا يمشون والناس في الدنيا لهم طبع هم سادة الناس لا قطع لما وصلوا من الأمور ولا وصل لما قطعوا من ñoom ca kanam nit ñi ci gannaaw ñooy sang yi su ñu ne waaw léegi kenn kontatul su ñu ne déedéet waaye kenn kontatul loolu lu ñuy sàgg kenn du ko jokk lu ñuy jokk kenn du ko nag wala de wala de وصار يوعى من منكم ومن جرير عبد الملك بن مروان Salama bin Malik bin Marwan see kéemaan la mm-hmm. waaw dinañ ko baax a baax mm-hmm. waxtaan nasaraan la woon mm-hmm. Abdul Malik bin Marwan moo ko fatoon su mu ko waxal li nga xam ne soo xaral muslim yi nangu mu ko koy waxal dem ak moom Màkka di dem ak moom Thiam Tamba Moussa di dem ak moom fu nekk pour mu koy waxal li mu bëgg rek ay du yoon sax di lim nag moom farat dàq ak jëriñ ne jamono ante waaye ana ñu tey yàlla koy si kenn nag afalaam na raay yëbu yéeme muy tagg Abdul Malik ibn Marwana mooy xasal xatiinu faraaxu minka aw bakaru waaye xaajat moom nawal fi sarfiha xiyaru tagg yu rëy la ko tagg yu rafet rafet la ko tagg yu rafet la ko ko tagg ana jotuloo ah jërëjëf tagg na Abdul Malik ay xasida yu yéeme li arab wax ñu ne arab lum taggee nit lu ci gën a gën a gën a gën a rafet jëriñ moo ko wax te boobu Abdul Malik lay tagg ak i bokkam alastum xayra man rek ban mataya wa antal alamina butuna rahi ne lu arab taggee nit lu mu ci gën a rafet alastum xayra man rek ban mataya wa antal alamina butuna rahi kuy jàmbaar yaratu leen kuy jëriñ yaratu leen te bu dee bi yëpp laa wax ñun ngeen def te ku yaatoo noonu ci waxi arab ñu ne ko fenn wala abdahu baytin qaalat al arab mooy mooy moomu jëriñ wax te dàq li ma nekk ci ko si demee kontaan foog ko si demee kontaan te asal moo di manoon mooy jëriñ mooy sañar bu xam ne joŋante lay jëm ñett fukki sañar gañe leen waaw loolu dafa ko te jamono boobu la doon dund buur yi la jaxasoo doon ñu ne taggee na leen ko ñoom ñooy jëyoon ak ñu ne kenn sotule رواده مرنا بني مروان كل مروان ما تشكنا ني ذلك مضارية ضمير ذلك مرض كيرنا المرسل ذلك وهذا بيجينا تذاكر الجلة قاري جلة بسرع جلة سقران دوي فيها جمرة وغفين الدمقة مولك هو ما يتدقون ما يكابتال الإسلام lu bëree fa nekkoon a terminator kaay bi ñu daan la fa lu ne amoon na fa Abdul Malik ibn Marwan tabaxoon na fa jàkk ji yéeme yéeme mu ne bu buy jàkk ji dafa noote te buy rek ku nekk ci sa biir sa nga fa waaye tey bi sama yi fa tabaxoon yëpp far na wala na ko kaay yi fa defoon dara ne atu fa yabara neexal ci kaw xel yi kenn ne ak fa waxadat mujj na rakiru jillatin baari jillatayi sofran de way fiya waa daanaka min lam toosa dikk lefule fatte ciniwe cilwey yo hoppanin cay surga awu fanin walla ay way wàcc waxanime boo ne fii buur mos na koo xam na dana dee lu ne am na ko de waaw lu ne dee def nañ ko fa waaw lu ne dee def nañ ko fa ida jannati dunya illa ka ida jannati dunya nga de wax di lañ ko baax a baax ida jannati dunya nekk annama sayfu walla baada waqdatihi awi rabiha tanha min baadi ma bawada soo demee ba taxaw jillaka te muy ci fadlu sayfi te fa mu gën a tàngee ba taxawee ca terminateur kaay ba da ngaa foog ne saytu jiw na ci rëbbion lay nekk su fekk rëbbion buy na xoolal la bu xam ne jaww ji du mos a naq. ila jannati dunya loolu bu baax dañ ko doon wax waaye ana. waa sax bu ne naa am la ka wara بجماعها فأتوا حصيد المغرود جانج لول وحصد جمرا ينم ويصلنا ولنقاس بالنقاس أملاك الوراجي قولي مدري بجمارها جيبنا فقطوا نمدي حصيد المغرود دكم يحمي قوق mu ne ba nga umm yata gannaaw bu seen mbir jeexee wal Abbas ñoo ci topp mooy buur yi nga xam ne Abbas ibn Abdul Muttalib moo de seen maam mooy alxulafaa al-abbaasiyuun ñun kat dawru yàgg na moo gën a yàgg jamono Banu Umayyata xam nañ ñu ràññeekoo ràññeeku nag lool nag ku mel ni Mansour moo sañcoon Baxdaad moo ko defoon capitalu l'islam doxalee ko Dimashqa mais loolu ku ràññeekoo ràññeekoo ràññeeku ci am xel maanaam mokkal ba ca dayoo ba moom ak Abdul Malik ibnu bokk na ci ñooñu itam Haruna Rashid Haruna Rashid ci xulafa woon Abbas yoon ci la bokk ràññeeku lool nag ca mën a nokka nag ba ca dayo ba ak mën a jaamu yàlla ba ca dayo ba ak mën a joxe alal ba ca dayo ba ku xam Rashid ku ne xamee nga ko ko waaw bi bu set dana julli téeméeri rakk wax dëgg yàlla itam nag bi bu set dana joxe téeméeri junne ku mën a joxe alal la waaye itam nag nos la nag waaw nos kat dëgg la waaw mos na di añi màkka ba moo bax daat war a dem ba màkka mu ne aj gi du ko war day dox diggante màkka ak bax waaye xaasibu du natt bu dee bu xëyee li muy war a dox day doolal malaat ci kaw malaat yi lay dox mu am mooy tax rek loolu waaw waaw xëy na bëgg a toroxlu comme jaam waaye nag bëgg a wane itam dayoo comme guur la ak yéen a bëgg a boole bi daan sonal la ñu pour ñoom nuy wax xalqul qur'ani ku lewet ki nga xam ne lu bëri mënoon na ko supporté te ku ràññee ko ci mànd itam ku bëri woon xam-xam la nag ah moom naa benn invitation bu mu def lu mat dem ñett fukki palaat yoo xam ne ñoom yi benn bokk leen sa morom benn bu ne mu taxaw wax lu njëriñ man dem na ko jurita Muhammad ibnu Haruna Rashid Abu Ishaq Abu Ishaq bi nga xamee ne tey moom kii na faru na bu soxla yi ñëw ci ko ndokkeel bi waxtu bi ñu naan Muhammadun Nuwaybin daf leen wax ne leen yenn weer yi ba tekki woon sama bay ku ci mënul lu ko rafetee bu fi jege. weer yi nga xamal noonu doo ma jege de. xalifatallahi inna aljuuda awdiyatun xallaka allahu minha xaysu tajtamiu ñu ba tabe ay yoon ne lay doo yooyu xur bu leen dajale dafa am koo xam ne day tabe ci ñëpp mais du tabe ci xaalis am koo xam ne day tabe ci xaalis mais du tabe ci xam xam-xam day tabe ci xam-xam te du tabe ci leneen comme ci mën a doon nag tabeem gi nag la yolnde bi nag ci yow la daje yaay ki tabe te tabe ci lépp yaay roy te lépp ci tab xalifatallahi innal juuda awdiyatun xallaka allahu min haysu tajtamiu in axlafa alqatru lam tuxlis maxayit man lam yakun bi وليس بالسنوات الخمس ينتهي من لم يكن ببني العباس معتصما وليس بالسنوات الخمس ينتفع jamono bii ko jàkkut ci yéen yàlla ku muy julli alku na ku mu ne tax waaw man lam yakun bibani l-abbasi mu'tasiman fa laysa bi salawaati l-xamsi yantafi'u xam nga boo neera lool dina la fal qatru lam tuxlif maxayiluhu mu ne nawet ni gàntu waaye loxoom du gàntu aw daqa amrun sakarnaahu fa yattasion loolu moo tax ñun saa su ñu amee soxla rek gannaaw yëg na ko faju na saa su ñu tolloo ca kat xare xetale ko ne mu ne loolu mari bi waxoon sama bàyyi noonu man nag yëkkoon bi banil abbas yi muctasiman fa laysa bi salawat al xamsi yantafiu ku ko ci mënul jarul nga di jëmee ko bu baax a baax yàlla dafa yaa maya xewut ci kenn waaw ah, ñu bare ko xam man yàlla am na koo xam ne bu dikkee nangul ko rek lay def ah. waaw waaw dun waaye bi ne ko man la duma te ak su def bi loolu daan la tagg tam nga jox xale ba tegee xasidaam bu yéeme boobu salaasatun tusriqu dunya bi bahjatiha samsu duha wa abu ishaqa wal qamaru kon ñett lañ ñu xam ne seen taar mooy leeral addina salaasatun tusriqu dunya bi bahjatiha ñett lañ ñu xam ne seen taar mooy leeral addina kan ak kan la الشمس ضحى وابو اسحاق والقمر كلام بابا سالفه nag ay fañ wax wéy jëriñ waaye wéy bi waaw saalfa ne wéy bi waaye wéy wéy da ko yëpp lool mu ne moom li ko ci gën a neex ni mu jël samsu doha mu ne ci bopp bi xamar ne ci cat la abu isaaqa nekk ci digg bi waaw selloo bu baax a baax dafa mel ni ñoom ñoom ñoo tolloo rek waaw selloo na bu baax a baax ويذكرهما ثلاثة تسرق الدنيا بباجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر وبتك فاطمة تسلم فالخلق جسم له رأس يدبره وأنت جارحته السمع والبصر. tey sa gis-gis defar na société bi yëpp mooy defar société bi yëpp tey dafa mel ni benn jëmm moo xam ne bopp ko jiite bopp nag pour mu jiite dara day am nopp mu am bët day nag bëti bopp boobu ko dox not bopp boobu yaa ko dox dara sa kalaat defar na suñ mbir lépp waaye faray jox na ko alal bokkul ak abir bi mu fekk dara atahir bi laana fa daaru amran tusiru bihi na ko jamono sa ndigal lay amran tusiru bihi fa bi ma yaqtadihi rayu yamtasili léegi loo wax mu def xaj na fu ko ni jëlee ma xaj na fu ko ni jëlee يرضي جبينه وما يرضي الله جبينه لك الوقار من الصديق تجنبه مهابة كان مهبوا بها عمر وجود عثمان والآفاق صاحبة ونجدة من علي والقناة كفر donc yàlla dajale mbaaxal xolafaawu raasidun yi xam nga man bëri yi nga xam. yaa ko Abu Bakrin nga. yaa ko xamee. gis nga ko bu baax a baax. naka noonu itam njàmbaar ko woon ca moom yaa ko xame ak tabal Usmaan ga ak njàmbaar ak am benn bis mu ànd ak moom ñu laaj ko huwa akbaru minni wa ana wulidtu qablahu mu ne ah xam naa maa njëkk a judd waaye mooy sama mag nag mu ne woon du wax maa mag yonent bi mukk la beneen nga xam ne yonent bi nag du muy gàttay bon attaque moom gàttay yu doon man naa xam booba dafa duggagut ci lislaam ndax keroog xare Badar la dugg ci lislaam wala dafa ragaloon bokkam feeñalut lislaamam keroog Badar nag la ko feeñal ndax waa Quraysh biñ jógee pour dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abbas dafa àndoon ci yoon wa ndax cosaanam xare bi muy suqali seen alal te xëy na alal la nga jàpp bi xare bi amee mu bokk ci ñuy jàpp mu ñu waxtaanee seen mbiru mu teer ci laaj ci laaj alal yonent bi da laaj alal baal sa ci moom ne ko awa joxe sa njot gi mu ne ko man xama xama de yonent bi nag yow ba nga bawoo sa kër sa soxna si umul fadli yëkkati nga nangam ci alal jox ko amoo fi naa daaw ma am nga danga joxe mu ne ko loolu de moom képp fekkewu ko yàlla mi la ko yàlla mi la xamal loolu su ne wóolu naa ne moo la wax la li ngay wax maanaam keroog la tuub wala keroog la feeñal lislaam moom mu nekk nag nit ku barke barke ba ca dayoo ba ndax njabootam borom xam-xam bu mag bi Abdoulaye ibn Abbas ibn Ibru ummati ci la bokk te itam njabootam nguur yàgg na ci loolu yàlla defal na ko ko keroog ba mu faatoo dafa métti woon doon ñu Abdullah ibn Abbas benn arab yi wax Abdullah ibn Abbas ne ko ci sa mbir nakun bika sabirina fa innama sadur raayati baada sadur raasi mu da ngay muñ ku yow xol yi ci loxoom lay ne فإنما صبر عيتي بعد صبر راسي lu nga baat bi nga ñàkk su fekkee sa bopp tax nga de ko jooy ndax dafa am loo ko bëri ci moom te amuloo yaa ko ji ngay am soo ko muñee su fekkee ne bëggoon koo taral fii yàlla nu ko yóbbu moo gën ci yow moo la daf xaar taral waaye xayrun min al abbasi ajruka baadahu wallahu xayrun minka lil abbasi ne fa kaana ajmala asail aw ne moo ko doon gisee mu ne fa kaana ajmala asail mu ne moo gën a rafet ci lu arab jaale ne ko baax a baax ko ni jàngal dama la tasakat landal na moom de ci kër yi ci jamono lu mu mën la kenn ki ku guñu fal buur sariyan xatar mu la tànn de mu yu bëri parce que ko moo leen fi jële waa dana moom de na rum na kulli mu mën la kenn fonk bépp tabax bu ñu la taxal wala na tabax bu yéeme mais ak mu ngeen tax jàng wa huwa bil baydaa'i kulla muhawwirin wa mutawwidi alaxsara an sidaa'in huwalin وحوله أو عنهما من سلبه أو في البسيطة غير صيد معرض بسهامها وقلم لا مستحسد ما المرء إلا ابن التوى ولو ارتقى فوق السماء بسلم لم يخلد شخص تكلفه السريا والسرى فالجسم كله من خفيف الحرم يعني jaagaru dee ci la nekkoon mu ne waxte salat faagaagal na moom dee fil jëbbi ci jëwu ji aw xubaru ay littinam mu ne dee mooy waxte janaaw ci jëwu ji nga ne ko ci suuf wa faagaagal na fil bay daa yi ci àll bi kulla muxayirin bépp aji bépp kuru wa mutawilin ak bépp aji mooy fekk kuy dëkk koy ci biir kuy yóbbaale ko fa. mooy fekk kuy yëg dëkk ca koy dëkk yóbbaale ko fa. mooy doon loolu moo koy def. mën naa wane ne loolu mooy am rek la. wala buur yàlla ne loolu mooy am dëgg da jotaat waaye nit ki xam ne fan bi rawukaay dee ndëgg ji ni mënu fee rawee dee pour ni mënu fee rawee dee koo dëgg ni mënu fee rawee dee man naa gën a dëgg rawee rek sax waaye ci lu ne yow ngay jëmmal la ngelaw luy xotteeku ci sa bët wala ngay jëmmal ku daanu ci biir ko ci sa bët wala ngay jëmmal ku daanu ci kaw def ci sa bët waaye nag nga xam ne rek dëgg ji moom du rawukaay dee te itam du rawukaay dee koo dëgg itam والغاية واللون خير أنا وقت خلقت على ظل من في الجن في جن أعقبه أي لسلم وقال ظل في البيضاء تعلفي كل مغير دفع جدت القرون ومتوج أجف عليه البس هل أقصرت تبوت من ذا تيوت هل إذا إن ولد te bu wut moom de may gàttal lu wut en tout cas borom ak jommale am kay fexe akoon li awil ngir fexeem amul kenn nit ku ko joŋee ku ko bëree fexe ba joŋeem nga fexeem ma mu man tee fexe ba du dee loolu amul awan huma min walla buur sindidin buraaji jàmbaar walla buur boo ñeme xare bu xam ngànnaay dooleem jooju ak fitam boowa mu mën caa xamee xeex dee ba mu loolu amul. ah dégg nga. bëri pexe teewul dee. mu wëri itam teewul dee. am fil basitati nekkul ci suuf si. xeyru saydin ku duur rab. mooradin wade wu ñu gaaral. li si amee ha perte dee. waxalan ak ku dul sa mustansarin bëri bu ñu góob laa ñaal de mu ne suuf bi koo fi gis benn benn waxtu bi am jotee rek dana dee dafa mel ne aw rab bu fi ne pour de rek gis ko gis fàddu ko am ñax muy fee pour dee di teg ko gis lekk ko waaye koo fi gis rek loolu la fi nekk am seen bët yi parce que nekkul ci suuf xayru saydin ku dul rab moo rabin wala wu ñu gaaral li ci am setti day kaw suuf bi amul kenn ku fi nekk te dul mu ngi mel ni arab wuñ ci taxawal pour de setti si ko suuf daan setti si ko suuf daan mooy kenn ku fi nekk te du dee la fi nekk amul waxalan ak ku dul bopp mu tax sarin bërëb bu ñu góob laa ñaal ko am ñax la muñ fe naatal pour de lekk si ko suuf mal mar u déet waay illa bu nut tawaa bara de doomi xalaku nit daal dafa mel ni pour na dee rek moo ko taxoon di juddu moom na xam naa du pour lool waaye gannaaw na loolu ca topp nag dafa di lu ne pour lool la mooy li doo lil mawti wa bunoo lil xaraab yi mooy da leen jur pour dee ngeen di tabax pour doom aw na la diggee ci hadis ba waaw pour pour na juddu dee rek loolu taxul kenn di bëgg doom loolu taxul ah, na juddu dee rek loolu kenn di bëgg waaye gannaaw la judd nag dee ay àdda na dee rek la tabax na ci tabax waaye gannaaw ci la mujj nag mujj nag judd ku ne rek ci dee lay mujj wala nit saqaa bu xéegoon moom nit fu mu xas samaay doxa fa samaa bisul la nin ci kerkeraan mooy seel lam yox la dé bu xëy borom bu suuf si nekk asamaan waaye itam yéeg ba ca kaw lay def rek waaye du ko teree dee ndax kaw du raw kay dee waaw. wala yéeg sa xaar bu yéegoon moom nit suuf asamaan yi gox ab asamaan bi suul la mel ci kerkeraan kon itam lan yoo xalaat déggu ko feneen. yan ca yàlla Souleymane ala nabiyina wa alayhi salaam dama mën a toog ak nit. buntu bi am ku dugg génn waaw kim toogal na xam nga ci bi génn mu ko déwén mu la malakul mawti la def ci yow la soxla yow jox ko mu ne ko ah mu ne ko ah mu ne ko dama bëggoon nga wax ngelaw li mu yóbbu mu bëgg na sori jigéen mu yóbbu ma ñun du ma ma dem Suleymaan ne ko waaw oh, baax na nga di yóbbu ko Hind dem toogee ak di waaji di pompel si at ne ko yàlla ma bëri kenn xam ko war a reyee dara mu jot mu ne fii ba léegi ba taw ma ñëw bàyyi ko ne ko dañu waxoon Hind ko war a jëlee te heure heure jot mu la <laughs> kon kon rawu gaay amul ndax wala weer saxaa bu yéegoon su xasamaa yi ci gone asamaan bi dul la mel ci kerkeraam lam yox la defu ko benal mu ne sax sun jëmm la moom nit na ko jëj teg na ko ak suray yadda lañ bi mooy bi ko bi ma xam wasara ak bàqana mooy bu defee taw yi ñuy bëri ba nga gis suuf si guus am xañu naqari amay yu xel bañ boobu sara li ñuy wax almamlakatul insaniya moom la bëgg a jàngale te tàmbali bi di fii maanaam nit ci ñaari mbir la baxee ko lenn li mooy rooxu leneen li mooy jëmm ruuxu borom bi da koo bind ci xam yàlla bind ko itam ci nangu jaam loolu moo tax ku sell la mu denc ko itam ci péyam bu sell ba ci malakul aala wanna kajam amu ko su ko defee jëmm nag ci botoxo bu xesew bii ci lañ ko tabaxee dana jëmm mu saltin nii nag jógee ci bu salte ñu jël ruuxu mu sell mu jógee fu sell ñëw boole ci ko jëmm nit ki formé woo seen diggante mu nekk waree xam mu jàppale ruuxu mu liggéey ci jëmm ba jëmm sell su ko defee ruux ak jëmm buñ bokkee sell moom mi formé woo seen diggante nekk di nit ku sell su waa suñ demee ba nga xam ne jógee ci jëmm ku war a la ruux bu tàggaloo rek jëmm comme mu ngi sell dana mën a delluwaat si hadra bu sell te buy dem dana yóbbuwaale te daa ngay liggéey su ko defee jëmm mi dencee comme lu sell lañ denc suñ demee ba gën a dund jotaat ñu war a soxlaat ànd ak jëmm ak ruux buñ jëlee ruux muy ku sell ñu boole ko jëmm muy lu sell ñu kii ku sell ñu yóbbu ko si kër yi xadul ñu sell. li muy cosaan gis nga ko bu baax a baax formé woo gi mu formé woo ci ruuxu muy lu sell lu dencee ci xadra bu sell ak jëmm mi nga xam ne mu mu lëndëm la lu salte la lu suufe la waxtaan nit la ko xam ne ñaari yëkkul ko keek lenn li mooy alkalkulu suraya leneen li mooy sara mooy jëmm ak ruux sax suñ jëmm la joo xam ne tekkan na ko ruux teg na ko suraya gëllëm bi mooy roox mu kawe daraja mi wasara ak bakkanam mooy jëmm mi nga xam ne ci botoxo bu salte lañ ko bindee te rooxu far fal jismu far jismu jëmm ji kulli na xamaleef na ko min xasiisil xirmi di tukkee ci botoxo bu ees dañoo jàng yooyu ci topp wa rooxu roox bi kaana nekk na nu soo sasum man soo génn waayam min dalikal mala'i da tukkee ca moomale mboolo al aliyu maraaji kawe alam jadi maraaji tedd waaw baax na foole ko gën a neex saaka li ardihi bi tasaffunil wa yaxillu daa li samaa'ihi bi tasahudi wal mar'u baynahuma maxaafata furqatin wa nawaqadofin fi lmuqimi almuqadi warruuxu kullifa an yusawwada linnawa birran faha huwa baana gayra musawwadi wa yuhatta anhu hebbuhu wa yufakka anhu quyuuduhu fa masaara fiifa muqayyadi ويمات عنه بتوبة أدرانه حتى يعود إلى الصفاء كما كما بدي loolu day na mu ne ruux mu ngi bàyyee ko ci al-mala'ul a'la muy mbindeef mu sell dencee ci hadra bu sell jëmm mu ngi bàyyee ko ci botoxo bu xiis muy lu salte su ko defee nag ruuxu nag fu sell comme ba xooxoon foofu rek lay bëgg a dellu mooy tax nit ak lu mu mën a def lu jublu ci yàlla rek rooxam du am lu ko doy subaa moom du mën a doylu nag ca loola jëmm nag moom li muy bëgg mooy roox mii dikk ci moom di ci dund na koy liggéeyloo ci ay bëgg-bëggi boppam rek waaw mun daal sëg bu ne daal rooxu na yëngatu ci moom pour moom na man de am lekk gu neex roohu na yëngatu ci moom pour moom na de am jigéenu jongama roohu na yëngatu ci moom pour moom na siiw rek roohu na yëngatu ci moom pour moom na xew rek yooyu lay bëgg rek yow amul doyeekaay ndax rooh mooy nit dana wax dëgg yàlla jublu ci yàlla rek ci lay amee lu ko doy boo amul lu ko doy nag doylu du mën a dana génne saa si kële di al jismu li ab di jëm ci suufam li tasa fule ci suufee suufee lu gis moom li muy bëgg rek mooy fu suufee sam baaxoon ndax foofu rek la xam bëgg-bëgg mi ñàkk solo yi day bàyyi xel ne ci la liggéey loo roobu rek ndax amul lenn loo kawe ba da ca jëm waaye xillu dana jëm ni saa roobu mii nag li sama yi jëm ci asamaanam bi tasama din ci yëkkateeku te roox nag wax dëgg yàlla la koy naaxal da ko dooleel xam ne ci laa amee lu ko doy mooy nit ki dellu jublu ci yàlla ndax adra bu sell ba mu baxoo mooy ko xamatul leneen leneen lu koy tëj ko lu koy doyati lu may rek wàllu sama borom tabaraka wa taala su ko defee noonu moom nit nag ci ni ko jëmm di fittee mu jëm suuf ak ni ko ruuxu di ñoddee mu jëm kaw xam nga ruuxu nit ki moo ko war a jàppale su ko jàppalee jublu ci yàlla mu am lu ko doy am kattan su ko defee mën a sellal jëmm moom mu doxee ci ku sell xale bu geneen dund jotee suñ boole ruux mu sell ak jëmm mu sell nit ka ca doxee woon ku sell ñu yóbbu ko ci kër ak ñu sell ña xam nga lii mooy waree ku nit ci diggante jëmm ak ruux bu fekkee dafa sàgganee wàllu ruuxu nag topp bëgg-bëgg gis mu nag gis moom du doylu heure bu ne day tilimal di gën di tilimal rek ba day mujj roo néew doole pet a sell ak cosaanam lépp lépp mu gis nit ki rooxam ak jëmmam yëpp ànd salte su ko defee bu ngeen xaajalee jëmm dañu salte roox dañu salte roox du mën a dellu ci hadra bu sell ba mu baaxoon day def di defee coono dafa war waa heure sa xawut ma sabatun doonoon jàng léegi su ko defee jëmm day dee lu salte ëllëg ci biir bu geneen dund amee suñ jëlee roobu mu salte boole ko jëmm mu rek ñun ki ci doon dund ko salte lay do kër gu salte ga rek lay yelloo ah, wax dëgg yàlla ëpp naa ñàkk a jàppale ndax buñ ko jàppalee la da mën a jag jëmm moom buñ ko toppee mbir day yàqu su ko defee nag jëmm nag ci yow la bokk te it dafa jiw ak boppam trop ah te nii de Salah li muy bëgg muy neex ci moom te yaa di yëg neex gi de te li muy bañ muy métti ci moom te yaa di yëg métti gi de ah kooku nooy def ba jàng boppam xam nga nit dafa jiw ak boppam trop te jëmm ci yow la bokk neexut a jàmbu waaye nag réew yi nag wax dëgg yàlla jàppale ko. mooy tax nag sellaam mbir yi jag waaye topp jëm yi nag day yàq mbir yi loolu moo tax nit ci diggante jëmm ak roohu ci diggante bu garaaw a la nekk ren wal mar un nit baynahuma ci diggante jëmm ak roohu fil nekk na ci aji taxawloo al muqeet bi daa ji jékkiloo arab dafay wax hum fil al muqeet mooy ñu mu garaaw garaaw mu xam ne la fekkee nga toog yaakaar naa da nga jóg bu la fekkee nga jóg da nga toog da nga àgg suuf nit ci diggante jëmm ak roowu ci diggante bu doy waar bu doy doy waar bu xam ne daal mën naa jóg loo ko fekkoon mu toog mën na toog loo ko fekkoon mu taxaw yàlla moo ci am maanaam loolu lañ ci jublu wala nit ni ko jëmm di bësee pour mu yëngatu ci suufe yi ak ni ko roowu di yëg ni maa ni ak ñu ruuxu di mu jublu ci yàlla daa mel ku ñaar fett kii de ko fépp mu jëm kaw kii de ko bës mu jëm suuf rek maxaafata furqatin ngir ragal tàggaloo wanawaan ak fori xadofin gay sànne a koon ndax itam boo jàmbuwul jëmm ànd ak ruuxu mbir yi du mën a jag dana jëm ne nag neexut a jàmm ndax ci moom la te nit dafa ak boppam war ruuxu ruuxu kulli fa toggeef na ayu sa wata bu ko lim na waa jëm ci kër ak sori di ran jëfi topp su ko defee ruux nag pour moom na am sell la am maa sell ak cosaanam googu na sax ci moom na dëhër mu am kattan am sellal mën a sellal jëmm buñ mu bu mën a yóbbuwaale yóbbal ca fa may delloo ak cadre bu sell bi moo waral takkaali sorin yi ngay gis nii ne lépp lu ko sorin bi togg rek lu muy dimbalee roo xam la ba roo man cee amee ëllëg yóbbal li ñuy farataal loolu la li ñuy soppe loolu la wa ruuxu kulli ba toggeef na xayu soo wata bu yóbbalee fat ko man na maa jëm ci këram sori di doon ay jëfi toog te baax na jël na moom ruuxa nag xalaatoo mosoo wër di ñoom dugaloo yóbbal mooy li ñuy wax tàggul jëmm nag te du fekk bu mu am yóbbal mu ngi am ci caaxaanee dundam day def lu baax ba dina war a dund ci wayu xataa bu si teesat an bu walis roohu xaq woo diis diisam moom roox ni mu sellee xamut lu mooy sell suñ ko boolee jëmm ak jëmm ni mu saltee xamul lu may salte ak ni muy bàyyee xel ne day liggéeyaloo roohu ci bëgg-bëggam yu suufe yi roohu day doon koy teg lu diis a diis a diis a diis nag diis diis boobu nag yow mii nit yow lañ gàcc ne na nga ko dindi loo ko dindee mooy toppatoo sariya bi yu fakk ak bu xobbee sarxan walis roohu xuyóotu waa ay jéngam fa masa dox na rafiifa mu xëyadin doxinu ku ñu jéng rafiif mooy doxin boo jagati moom ruux saa soo xamee ne boole nañ ko jëmm ni ko jëmm di gàllankooree ci jublu ci yàlla ndax bëgg di ko liggéeyloo ci bëgg-bëggi boppam dafa mel ni rek kuñ tënk rek boobu boobu bëgg du mën a dem fa mu bëgg a dem yow mii nit nag lañ gàcce ne la nga cin ci tënk boobu mooy yaa di jàppale rooxu ci ba xam ne dana am doole jëm sell lay jëm moom. mooy yu ma ak bu te ak bu ak bu dañ la lay fat am na taw ba di ci tuub ak raanoo ay tëli moom. su ko defee moom jëmm saa su jaxasoo ak roo lu ko ñàkk a tëkkal leen ni tilim mooy janaadul maasum léeg rek moo am rek ci la ci la si bàkkaar yow mii nit ki ne la tilim yooyu yaa ko war a dindi li ñu koy dindee mooy tuub xata yow ba mu dellu ila safa yi jëm ci sell kama bu dee ni ki ni ki dooree feeku nam meloon ci njëlbeen baax na foofu beneen yoon incha allah وهدي الهدوء إلى العلا بتعلق وتخلق وتجرد ويفصم الحمأ الذي قد شابه بتأنس وتوحش وتفرد ويمد ضمعه ويبحل جفنه لتذكر وتفكر وتفقد والمرء مصغوف بإتراف الذي من ذاته هو عن قريب مرتدي ومضيع ما ليس يبرح دائما ما هو على مر الوجود السرمدي كالعير ليس له بشيء همة الاقتدام والقطب حول المذود ñu jàngal la maanaam takaalif sarxe yi yiñ gàcce ci nit dafa liggéey nit ki dam dimbale rooxam ba roox sell ak cosaanam googu wéy mu am kattan lum sellalee jëmm ba nit ki doxee ci koo xam ne lépp may sell loolu lañ doon jàng démb ci la ñoo wéyaat ak yow wayu saala ak bu yëkkatee fat ko moom jëmm wala moom roox min wuhudil hudoodi ci kamb ci kamb yaa ñoom bànneexi ba kan yi la ilanoo laa jëm ci kowe moom roox suñu ko jëlee ba boole ko jëmm jëmm bàyyi xel di ko lëggéeyloo ci bëgg-bëggam yu suufe yi dafa mel ni kuñ jëlee ci barab bu kawe rek daane la ci kam kàmbu ndax da ngay xam ne xatra bu sell ci la baxoo te ñu ko boolee koo xam ne yu suufee suufee la bàyyi xel di ko liggéeyloo kon dafa mel ni kuñ pamax mu daanu ci kàmbu kàmbu googu nag yow yaa ko ci war a jëlee yow nit jikko yoo ko caa jëlee nag moom lañ la togg mooy tax ñu la togg jikko yoo ko caa jëlee buyu ak bu yëkkatee fat ko moom roo min wuxuudil xusuusi tukkee ci kamb yaa e ñoom bànneexi bakkan yi la ilanoo laa jëm ci kawe yi bi taalluqin ci taalluq mooy xaju ci yàlla xam ne moom rek moo la mën a jox moom rek moo la mën a xañ moom rek ci moom la njëriñ de baxoo moom rek ci moom la lor de baxoo kon moom moom rek kon moom kon moom rek moo la war di taxa def moom rek moo la war di taxa ba moom rek nga war a yaakaar moom rek nga war a ragal moom rek nga war de wéttale ko xol bi aajo noonu ci yàlla dana waral bu baax te te xërëb la lu te sooy def lu baax te yàlla sax rek waaye ay génn bëgg-bëgg jëm ngi am wa taxalluqin ak taxalluq mooy jikko jikkoolu mooy roy yàlla ci gi waaw duñ ko leen nitu waaye dañ koy roy nag tey ci misaal dañoo wax ne bokk na ci turi yàlla yi karim karim mooy koo xam ne karam meloom la xam nga melow mbaax lay tegtale su boobaa nag la nga xam ne bu ko jaam defee muy karam ci moom nga jéem loolu nga xam ne karam moom baax la mbaa ñu ngi ko melale yàlla te tegtale woon góoram bi ko kenn du fekk ku mel mooy taxalluk wala ñu ne bokk na ci turu yàlla yi sattaar te muy koo xamee dafay xam lu ñaaw bañ koo wax ci ni ko jàmm mën a xamee noonu la su ko defee nga gis ne melaw mbaax la nga di ci jéem la yelloog jàmm mooy jàngee ni nga war a baaxee ci mbaax ak yàlla gi loolu mooy taxalluk waa jàngee ni nga war a baaxee yow ci mbaax ak yàlla gi mooy taxalluk loolu itam ci liy tax jaam bi mucc ci yenn melo yu suufe yi la wa tajarrudin ak raflewu mooy bàyyi xel ne yàlla nga fay neexal waaw looy def rek mooy tax dafa nekkal sa bakkan dafa nekkal poñat comme li ngay gis ci àddina itam luy ne ci sa loxo la nga di ci dimbali koo nekkal yàlla rek yooyu bu ko rek dana mën a mucc si yëngatu ndeg lu ko jarut ah dana mën a mucc si yëngatu ndeg lu ko jarut ah bay de yàlla rek moo koy tax a def souvent ne yàlla mi ko tax a def nañ ko def looyee rek lay set su demee bay ba yàlla rek moo koy tax a ba yàlla mi ko tax a ba nag nañ ko balooyee rek lay set waaw ah, léegi nag moom mu ngi def ndeg yàlla te de defee na ko yàlla def looyee mu ngi bandig yàlla mm. te de bàyyi na ko yàlla balooxee mm. su ci yàlla mm. su xenoo ci yàlla rek muy génne ci suufe gi dem ca kawe ga te loolu bu baax a baax wuyu ko min wuxudil xudooti ci kamb yaa ñoom bànneexi bakkan yi la ilal wala jëm ci kawe bi taalluqin ci haju xol ci haju ci yàlla de ko moom kenn rek moom ngay yaakaar moom kenn rek moom ngay ragal moom kenn rek moom ngay wéttale kon moom kenn rek moom moo lay tax a def moom kenn rek moo lay tax a baax wa taxalluqin ak jikko jikkoolu wa tajarrudin ak rablewu wuyu faxsa ak bu dëñalee ko milhama i ci batoxo alladi bi nga xam ne xat saaboo naag moom bi taannusin ci wéttale ko wa tawaxu seen ak wéet ci lu ah, ak wéet ba tey beddeeku te itam moom roox buñ ko jëlee boole ko jëmm ni jëmm saltee fokk rek du ko ñàkkaat sëqal ay tilim tilim mooy nit ki gannaaw nit rek la mën naa am du mucc ci da bëgg lu dul noonu da bëgg ci da bëgg lu amul solo ba loola nag da ko jaral yenn yi nit rek la maanaam du mucc ci bëgg lu amul solo ba loola da koy jaral yen yi te loolu nag ab tilim la te roox moom ku sell la dana wax dëgg yàlla mu sellal si jëmm moo tax ñu boole leen xasina jëmmun koy tëqal tëq tëq yooyu yaa ko war a dindi ni koy dindee mooy wéttale ko yàlla wéttale ko yàlla mooy te def lim la sant te bàyyee ko dogalam yi faabudhu wa tawakkal alayhi beneen ba ca topp mooy lu dul yàlla nim la mën la dee dara xelu bu baax a nim la mën a la dee dara gannaaw gis nga nim la mën a la dee dara sa xol bi du ko def muy wéttal ak itam léeg-léeg ngay beddeeku yow kenn te yàlla tax la te beddeeku heure bu ne yaa ngi sori nit ñi jaxasoo wala waxul ak kenn ci yàlla rek nga nekk loolu ñun moomuñu ko dafa am koo xam ne jaamu yàlla daf ci am loo ci nit ñi la ko defee ndax sama borom tabaraka wa taala da ko hen ci nit ñi fokk si mu jaxasoo ak ñoom kem la yenam sama borom ba ci ñoom te ci misaal ko xam ne borom halal la bu xam ne sama borom mu ngi xiir ñu néew doole ñi ñi fekk ci moom muy leen xetle ci lor kooku xiidoo xiidu ba du xetle ti kenn waru ko def ki nga xam ne ab xaadi la borom daraja la bu xam ne sama borom jox na ko mënooreef muy xett lu ñuy tooñ ci loxoy tooñkat yi kooku waru hiidu hiidu ba ñuy tooñ de loru ki nga xam ne ab borom xam-xam la sama borom boole na ko nit ñi muy gindi ñu bëgg a jub war di hiidu hiidu hiidu ba nga xam ne du gindeeti kenn ndax ñooñu kum ci mën a do du kuñ indi pour mu nekkal si boppam rek dafa am loo xam ne wàllu nit ñi la te teg ko ci loxo mu war ko jébbal su leen ko joxul nag la war diggante moom boromam defu ko moo tax kooku moomee wut daru heure bu ne dina ko baax a baax xam nag nit kum mën a daw bis bu set war naa am waxtu bu xam ne boromam rek la ko set nag soo dul kooku nag jaxasoog nit ñi dalaa torde rek la ngay toog ñoom di waxtaan waxtaan bu jëmul so ko nga weesoo dogu ñaan liggéey ca loo amee so ko nga weesoo jukki fa alquran jàng ca loo amee tiyaabo soo ca settantalee xamee ca xam-xam boo xees suba jaxasoo ñoom dara tambeer rek wala na wayu fas fa ak bu dañalee set ko milhama yi ci batoxo alladi bi nga xam ne xasaaboo jaxasoo ak moom bi taannusin ci wa tawaxusin ak wéetlu ci lu dul yàlla wa tafarrudin ak bereeku beddeeku wa yu ak bu tàllalee fat du faawu ñaari pëdëgëm wa yu ak bu tungalee fat jaf woo mbatam bëtam moom nit moom lañ gàcc mu dimbale ruuxam madda damay muy dimbale na ko kaala jaf woo ba tey muy dimbale na ko rek moom jëmm yi muy gàllankooree ruuxu te nga xam ne mën na ko jaa néewalee doole mm. ba perte sella ba mu perte sellam nga mm. loolu yow lañ gàcc yow mii nit mm. nga nekk ndimbalal ruuxu ba jëmu doo am doole yi da ko gàllankoor di ko tilimal de ko defee nag bi tasa kurin ci fàttaleku ngay fàttaleku la nga kóolrante woon ak sa borom caala mu darri ba mu waxee alastu bi rabbikum te yow nanguloon nga ko rububiya saxalal nga ci sa bopp ubudiya diggante rab boog abdu nag xam na lu ci jaadu loolu boo dëkkee de ko fàttaleku dëkk de ko fàttaleku dana am yo xam ne doo ko nanguwaati dana am yoo doo ko defati mooy wakkuro ni'matallahi alaykum wa misaqahu alladi wasaqakum bihi is qultum sami'na wa ata'na wa tafakkurin ak qalam mooy sayru nafsi fil maqula liggéeyloo sa bakkan ci xel xam yoon ndax lu leer a leer loolu mooy tafakkur sayru nafsi fil maqula a li xel nga liggéeyloo ci sa bakkan ba gis ci lu leer a leer lool mooy tafakkur su ko defee fu ngay liggéeyloo sa xel ba gis lu leer a leer moo tudd mudrak mooy liggéeyloo sa xel ci madarig yi lu bari la nag te yow mën ngaa seet yi nim demee ak niñ koy waxee nga gis ne lii daal ak ak seen wax nga gis ne lii daal ku nekk fa nga koy fàggoo ci góorgóorlu ba xam te cër jar na mu def ko souvent xalaat boobu day mujj dem ci yow nekkal yàlla rek da jaamu yàlla te la tax wala ngay xalaat mbugalam safara ni mu doyee waar nga gis ne li daal ku nekk fu xam ne fa lay liggéeyee la ko cay musal lu mu mën a def ba mucc ja rek war na di ko def doo yëg rek xalaat boobu dana def ci yow njub rek da jaamu yàlla ngir yàlla ba mu àgg rek loolu mooy wa tafaqqudin ak gendeeku mooy da bàyyi xel say sikk da bàyyi xel la koy saafara loolu itam wareef la ci nit mën na cee dimbale rooxam nit bu xamee ay sikkam xam lay saafara sikk ya mu góorgóorlu ba tàggu sikk ya lu mu humpulee ti itam fekk na jëriñu ne jalam xam nit bu xamee ay sikkam góor xam la koy saafara góorgóorlu ba tàggu sikk ya moom lu mu humpaleeti itam fekk na moom jëriñu na ca lam xam yow boo xamee ayib xam la koy saafara nga ne ca ayib yi saafarahu te duula ku yaa bopp kuy waxal nit ñi seen ëllëg itam wax dëgg yàlla humpale ëllëg moom nga def de waaye li nga xam ne amal la la jëriñ duula kuy wax xutbu samaan bi naan diw sangam la humpale xutbu bi de nga ko waaye li nga xam ne amal na la jëriñ nga wax nit